laal tuuti rek ci lenn balaa nga ju gis nañu euh, contrat yi nu suspendre ci lu ñeel LONASE coow li bëri ñu ci nañu leen di tudd ci lu ñeel wàllum convention ak nañ ko leen doon joxalee boo xoolee tudd nañ ci euh, ñoo xam ne ay millions bokka milliards lu ci mel ni Tange Tandian huit millions la ko daan euh, jox ci lu ñeel wàllum nañuy circuler seen kii ci réseaux sociaux yi Maté 3 pom 5 millions Cheikh Mbacké Gadiaga 15 millions ba ci Mame Gor maam Mame Gor Diazaka dafa yorul boîte wala waaw am na presse d' accord moom 8 euh, millions ñaaxarañ loo moom it 8 euh, million leeral cinq million euh, surtout Aïssatou Diop Fall mooy seen grand place bi ngeen di toog. 20 foofu ñoom tam tudd nañ leen 20 millions. Ndiaw Fall aussi pareil. ak ah, maa ngi ñëw pare gu ma damay lim nii de. daanaka gu ma de. limal Walfadjri 65 millions. Kewlo 15 millions. leeral ah, Bour News vingt million Bour nag démb dind dugal na communiqué ci kan meetut dinaa ci ñëw xam na ne ni mbir yi demee RTS nag nee na la ca des 200 millions. millions. bu ñu ci li nga xam xam nga xam nga direction générale bu ci ne. Hmm. yow yaa xam naka ngay def. Hmm. pour gérer sa communication. c'est-à-dire il faut accepter une chose. Hmm. presse bi su ñu amul publicité convention leen leen di dundal. su ñu amul pub. convention moo leen di dundal. yan presse. wax presse en général su ñu amul publicité convention moo leen di dundal. maintenant nag yàlla dafa def tu ne peux pas signer des conventions avec tout le monde tu ne peux pas. mais tu peux cibler. j'ai dit tu peux cibler maintenant ki cibler. Mm. dafa am ñu mu cibler. ñan la. mooy ñi nga lim. ñooñu ñooy ñan. non mooy presque nga lim rek ñooñu la cibler. mais est-ce qu'ils sont crédibles. j'ai dit parce que xam nga problème bi man xam nga non attends attends attends tey man damaa jàpp ni peut-être fii ma toog crédible na ku ñëw fii signal ma convention damay sant. Mm. te nag dañoo war a ñëw nag signer convention. Mm. Sonko dagg na convention de. du dëgg. mbaa du pëcc xool non non lu non ce que je bu ñëw. mais attends day xoolaat convention yi da koy arrêté pour renouveler. Aïssatou Diop Fall waxoon na Thérèse Faye 100 millions yi nga xam ne moom. non loolu c' est pas l' objet du débat. ah benn la non j' ai dit non déglul baax li ma la. problème ah. Thérèse Faye Thérèse Faye Thérèse Faye Thérèse Faye. la woon non defal ndànk rek. pare la bu mu ko jox comme lu ñu lebalee comme lu ñu lebalee euh, kilifa. muy fay noonu la ñuy lay balee keneen ak keneen c'est des c'est des sénégalais. dañoo la nga les lonaas la ca xew. Hmm. génnagul de. Ah yow presse bi nga yëg. Hmm. Toussaint Manga. Hmm. arrêté na ay contrat ñeneen ak ñeneen. ñu doon liggéey ay contractuels. daan ñu woon liggéey. ah ay contrat fictif la. non déglul baax li ma la. la xew Lonase. toog muy dox bi ko non non non am na ci ñoo xamante ni tey soo yëgoon seen tur da ngay tëj sa da ngay tëj sa gémmiñ. comme lan ah ñoo mais bien sûr. Hmm? ban air la air Dora. waaw. Hmm? pour te dire. Toussaint dafa dafa dafa dafa dafa dafa. dafa dañu dañu wax ni. Hmm. c'est-à-dire déglu rek dañu wax rek ne lii am na lii am na lii am na par rapport à la presse. Mhm. mais man ñi ma yëg ci ñi xamante je n'en pas. et puis c'est de personnes c'est des personnes qui étaient très proches de l'opposition d'alors. ah bon wallahi jox ñu ci benn tur ëpp ci làmmiñ nag. ñoom ñëpp ñu ngi doon takk rajo. ñu ngi doon seeti dóoraay ay ay contrat yu ñu liggéeyul woon. prestation prestation. ah oui di leen fay par mois. waaw jox ñu ci benn tur. Adama Fall li nga xam garaaw na. trop. <laughs> n'est-ce pas. non donc puisque puisque suba damay ñëw. <laughs> denc suba mais suba di nga day ñëwaat incha allah léegi eh, Adama Fall dafay ñëw trois fois par semaine. waaw mais waaw. mais da nga ñëw indil damay ñëw lundi. mercredi ak àjjuma. Hmm. incha allah. mais parfois ñu buruxlu comme système. buruxlu waaw suba suba buruxlu non damay préciser aussi. Uh-huh. que taxawaay bi ma taxaw. par rapport ak ministère du tourisme et autres. Uh-huh. c'est parce que fa laay liggéey. ok ok. et je suis un agent de de, l'État. Mmh. c'est-à-dire dans le contrat que j'ai signé. Mmh. j'ai le droit mmh. le devoir. de défendre sa fi may liggéey. Ah, c'est un devoir. loolu d'accord nañu yaa ngi doog a feeñ nag. léegi nag indil ma ministre bi mais ñu ñu ñu ñu ñu lim ci convention yi. maintenant bokkuma ci cabinet bokkuma ci lennam. fa la ma fay n'est-ce pas. ñi ñu ci lim. ñi ñu ñaaxarañ ñu lim xam nga directeur général bi non déglu rek déglu baax li ma ne. xam nga xam nga la gestion de la LONASE. Mhm. Nana n'a pas encore donné ses secrets. Ah. mais moom ban rôle la doon joué ci communauté bi. noo déglu rek. n'a encore donné son secret. Toussaint Manga waxagul. te te moom ba muy toog. dafa newoon du arrêté contra convention yi dafa newoon du ko arrêté. moom Toussaint waaw. mais est-ce que ba mu demee ba gis li ci biir. Mm-hmm. ci la taxaw. Mm-hmm. est-ce que tu comprends. Mm-hmm. ba coow li baree par rapport au au au yi mu arrêté. moi je suis sorti bokkuñu mais sur des principes su nekkee contrat de prestation. Mm. directeur général am na droit arrêté ko. à mm. tout moment. yaa ngi ci jub jubal jubal non déglu rek non déedéet du question jub jubal am nga droit bi yow directeur mais danga koy jox da leen di jox da leen di jox préavis à l'avance ah, donc il n'a pas violé les textes su nekkee CDD la su jeexee am na droit bi mm-hmm. de terminer c'est-à-dire am na droit bi un une autorité dans une direction générale ki mu mënul dara mm. mooy ki nga xam ne dafa am CDI il faut nit ñi taxaw dans les principes su nekk parce que ci république lañ nekk quoi mais li ci gën a métti nag gars yi CD yi lañ doon def de. waa léegi non non non non non non non non man man li may li may non non non li may laajte moom prestataire yee ëppoon mais Adama Fall kalaatmaa bi am LONASE yëpp bul fàtte ni ña ne woon APR ko def. waaw déglul baax li man dama ne xam nga nag ña ne woon APR ku ca deful gestion bu baax man duma toog fii kat di la layal. déglul baax li ma la. kan ne woon APR ka. kanewa déglul ña dama ne dama ne ku ci mënti ne defoo ci gestion bu baax mm-hmm. man duma toog fii di la layal yow yaa war a layal sa bopp mm-hmm. parce que nag république dafa am fonctionnement bu mu war a doxe mm-hmm. les contrats de prestation directeur général am na droit def ko xam man gis naa ñu naan El Malick nommé na diw nommé na diw nommé na diw nommé na diw am na droit bi parce que il doit former son cabinet il en a le droit te day politique Linguère lay politiquer am na droit jël waa Linguère dugal ci cabinet bi. il en droit. Ah. waaw lu tax ñun bañu ñun bañu ñu ko woon ba ñuy nekk ci ba ñuy nekk au pouvoir tey ñu bañal ko ki nga xam ni dafa accéder au pouvoir. waaw ah, dëgg yi moom ñoom cest il faut qu'on soit ñu nekk cohérent dans notre démarche. mais xam nga lu ñu d'accord Adama direction yi ñu jël di ko def xeex politique parce qu'on se dise la vérité l'ONAS ki fa mujjee nekk DG. dañ ko fa tegoon politiquement pour mu xeex un candidat bu jóge ci yenn. te te te ma ma dolli la ci Zeyna. maintenant ñu mu jël. dara fay ñëwul de foofu dara Adama woo fa fa ñàkk ñu jox la parce que ñi ñu <laughs> eh, nañ ko jox ko daa mais la plupart ñi ñu lim ñi ñoom la jox convention yi ñoom rek doon topp non dama ne LONASE waxagul waxagul ay secret gajaga su may wàcc di ko wax dama ne LONASE waxagul ay secret mais yi gën tous ces manga la xew LONASE du dëgg. Mm-hmm. man singalewu ma kenn seen pexe su juboon. Mm. peut-être leneen mooy demee kon dinañ ma boole peut-être ci liste boobu. Ah n'est-ce pas Zeyna waaw ah. peut-être kon tey ah, dinañ ma boole ci liste boobu. mais puisque man <laughs> ma wax du ko weddi. bërëx la wala puisque puisque man puisque man doxuma ci weccit. Mm. kii kay ay millions yu bari yow jox ñu loon mais Adama nag waxoon nga fi na la Macky Sall ah, ñam waxoon loxo bi la kii joxuñu ko weccet ko de ay oto lañ ko proposé woo la proposé la pour nga liggéey grave ça mais dafa bañ moom boo moom d'accord naa ak moom bañ c'est-à-dire li ma xam daal mooy su doon maa yow da ngay lekk ba pare dañ may tudd waaw da ngay ba pare man maay dem uyu ji fee. kon man maay dem uyu ji fee rëbës. doo a toog. non tey du ma mën a toog fii wax li may war a wax. moo tax ma ne la. la LONASE n'a pas encore révélé ses secrets. d'accord walaay dëgg la. te li ci loolu am. mooy nit suñ la dénkee xoolal ni ngay téye. Mhm. xoolal na ngay doxe parce que suba am na. Mhm. te suba am na boobu. Mhm. moo tax nit ñi war a lu te te gis nga. dama ne ba ñuy def la ñuy def. da wax la ñuy wax su ma ko mm. nangu tey peut-être tey du ma am sañ-sañ bii wala nga nekk ado mm. ah, ci benn euh, doxin di dox mm. politicien bu demee ba teg ci deux cent millions rek xamal ne mi ngi lay xañ un milliard dëgg la laay dëgg la saa su ne ku ñu mën ci deux cent millions rek xamal ne nar ngaa amee milliard boo xam ne du doon lu ñu lay jëndee. looy la xaramaag. mën naa ko wax ci off quoi mais. mais man xamal la laa d' accord. mën naa def man xaramaag d' accord merci beaucoup Adama gërëm nañu la bu baax a baax. man nag man Adama man Adama bëggoon naa mu déglu li may wax ni parce que xamal la laa d' accord ak Adama. non non non boobu boobu c' était pas du par affaire boîte. bu dul saa yu tege sa kanam ay millions affaire boîte du ah, affaire contrat de ah, prestation. ok ok ok non bàyyi foofu day tax ñu ñëwaat ci plateau bi ngir yàlla. non d' accord tey bu dugg quoi. day tax ñu ñëwaat ci plateau bi loolu day tax ñu ñëw bu dugg foofu. d' accord dugg foofu quoi. <laughs> mi ngoog merci beaucoup Adama à demain incha allah mercredi bien ah, bu ko liggéey bi jaree xam nga ñëw buruxlu patriote yi damaa bëgg ngeen xam ne Adama Fall réew mee ko gi koy sànni kii non buruxlu non ba ñu toogee fii dañ ko wax dama dafa wax ma ne ko hé <laughs> li ma eh, gën a Modou ah, Asta Modou Asta ma ne ko li ma gën a contre moom mii sax d'accordul ci ay transhumance nangam sangam li ma gën a contre ci àdduna hmm. mooy sénégalais yi ñooñu ne ñii la ñu wóolu fal leen. Mhm. yéen dem leen opposition ñun nañu dem toog opposition. mooy dëgg ah. bàyyi leen ñoom ñuy doxal. Mhm. loolooy dëgg. Sénégal su ñu bëggee ñu dem mu dem avancé mooy ñi Sénégalais yi wóolu nañ leen bàyyi ñu doxal ñun ñu liñ ñu dénk mooy dem leen opposition nañ dem opposé wu te opposition nag amul lu ko daax <laughs> dafa neex de amul ah. pression. <laughs> amul pression. bi xanaa kenn du la wax soxla maanaam defal ndànk rek kenn du la wax soxla. kenn du la poñe ci ordonnance parce que nag pouvoir a metti fi mu ne nii nii nii hmm. sama carburant saa yi ma koy jox Mourou Asta. ah <laughs> ndax ndax opposant la. merci beaucoup ah <laughs> on se donne rendez-vous euh, les secrets de la LONASE. Hmm. muy génne ay compte goutte rek. waaw ah, ah waaye mbaa ndax day defante kooku noonu sant Balde. waaw ah, dañu am contentieux moom lay defante waaye kooku itam dégg naa sikk na de yi fi yëpp da koo ah, ma tooñ quoi ah, daf ko tooñ daf ma tooñ quoi kooku dégg ma tooñ dafa tax dafa tax sama der bi yàqu quoi waaw da ko tooñ tax sama der bi yàqu parce que on parle de 30 millions d'une 4x4 mu demee nu mu demee non non non non bàyyi Moussa ah mais Adama man j'ai pas yàlla yàlla mi ngi yàgg mi ngi feeñal puisque yàlla mi ngi feeñal mm. euh, waxuma di la di de. Hmm. parce que loolu ah, yoon moo loolu yoon moo ko mën a wax. Hmm, mais li ma xam. Hmm. ba xam. mooy gën naa ko demin. gën naa ko demin lool.